barke alxuraanul karim bu arbitre sifflé périm maa ci kaw. parce que Seydina Mouhamed mun na ma tëgg benn ñaar su mu ko tëggee benn biñ leex tax mbokki Sénégal mbokki amateur yi le 7 octobre ci arène nationale structure bu bees boobee ñuy wax Diawfara Events moo fas yéene def baptême de feu daal di indi ay combat yu amul fenn mu fas yéene ubbee combat bu mag combat bu neex ba jéggi neex muy diggante Baye Mandiaye 2 ak Albarka Kayré combat spécial mu toftal ca caatu Jolof ak Clémenceau ma ne ko préliminaire ya mu ne ma guy gi 2 ak Pape ma 2 bébé nag rek ak gaynde daaru doomu Mbawar ak bébé Tidiane ak ñaa gaynde Soura ak Boy Faye Abou caatu ndengeleer ak réparé 2 Siteu ak déranger bu jàmm gën ma ne ko jaw fara gan bi yeewi béy de mu ne ma bàyyil rek ma wone sama manin dama mbappat ci làmb jaar ci jaar waaye yëpp kon njëkk maa tëgg làmb mën na nekk waaye gën maa xam combat yu neex moom duma ko nangu fenn fu waay jaar ba am combat yu neex ma jaar fa ba am combat yu gën a neex moo waral ma andi leen diggante Baye ma 2 ak Albarka Kayré le 7 octobre ci arène nationale ma ne mbokki amateurs yi jaw fara events moo ñëw ak yu bees kon bu ko kenn nettali